kàddu yi nag dama ñëw tey indi ay leeral rek ci ñaar yoo xamante ni eh, jëmm jooju ñu invité woon démb ci TFM muy quartier général te mu doon waxtaan ci jàmbaaru lislaam muy Cheikh Cheikh Ibrahima Fall radiallahu anhu ba yegg si ci diggante mag Cheikh Adama Gueye mu am ay njuumte yu yu fa def wala ak ñàkk xam wala ak tayef te jëf ji ñett yooyu rek ci la mën a taxaw ñu seetluwaat ne tamit defaat na njuumte ci jéem a doyadal xam-xam te ñëpp xam ne xam-xam tànk yi mu amee ci yoonu murit bi muy wax ba yegsi ci Cheikh Adama Gueye dafa wax wane ne Cheikh Adama yi ba mu ko rombee ànd ak sëñ ba Touré Cheikh Ibrahima Fall dafa gis ci ñoom ku Sëriñ Tuubaa defar ni mu war a mel mu cëppalu topp leen mu dellu waxaat ne cheikh ñoom dañ ko jàppe woon ab dof cheikh aaram bëggoon nax ba def ko taalibeem te gis na ñaari waxi kon am na njuumte lu rëy ak ak juunoo ndax sëriñ tubaa mënulaa defar ba ku la gis xàmmee ay màndarge sëriñ tubaa ci yow ba pare nga wëlbatiku di nax nit ci bëgg ko def ab taalibe te suñu delloo ca Minanu Baay Xadim ci page 132 ba cent page 135 ci mool bi nga xam ne sëñ Moustapha Bassirou radiyallahu anhu moo ko mool woon danañ ca maa ngi cay leeral sëriñ Bassirou radiyallahu anhu naka li taxoon si aadama jébbalu ak naka la jébbaloo ni mu jébbaloo sëñ Tuubaa moom moo ko ko wan moo ko jàngal ko nag taali bi li taxoon yi mooy ngir yegg ca yàlla sëñ Tuubaa xamal ko ne ku bëgg a dem ca yàlla àdduna moom doo fi soxla dara doo fi gëstoo ci ak njaboot wala alal nit nag naka nga mën a dëddoo àdduna nit njaboot ni mu mel ak alal ni mu mel dem di propagande keneen pour mu nekk sa taalibi kon li leen dat ci àdduna ci ay xéewal loolu fadlun minallah daal rek xéewal gu jóge ci yàlla waaye taxul woon ñu ànd ak Sëriñ Tuubaa kon foofu njuumte mu rëy am na ci beneen beet dafa wax ne xam-xam da ko doyal ci biir wax ji lu bari waa ndax amul xam-xam nit lu mu xamul nag euh, arab day wax ne lu waay xamul lu waay réere rek def comme noonu kon dafa amul xam-xam ndax bu delloo ci mbindi Sëriñ Tuubaa gis na li mu fi wax ci xam-xam dem na bay méngaleeg ñi bëgg a dox diggante murid ak xam-xam sax ndawal ndawal iblis mii ki ñu rëbb muy wax ne wa man nahaakum an taallumi fa nahyuhu ila dalaali yantami del wa man nahaakum an taallumi fa wa xalifatu laayni mujrimi wax ne képp kuy dox seen diggante xam-xam di leen ko aaye xam leen ne dafa réer waxaan ne képp kuy dox seen diggante xam-xam xam leen ne ndawul iblis la te moom kon ñaari yëpp mën nañ ko cee dugal beneen beet gis nañ erreur yu rëy yi mu def muy fekk relation yoo xamante ni ci ak iraada lañ ko tabaxe muy relation Cheikh Adama ak Cheikh Ibrahima Fall radiallahu anhuma nga cay dugal ay xajam xajam ak ay jax-jaxal ndax Cheikh Ibrahima Fall sàmm ne digganteem ak Cheikh Adama ba jóge fi sàmm ne digganteem ak doomu Cheikh Adama Serigne Magueye ba jóge fi li ciy firnde mooy Cheikh Ibra jox na doomam sëñ Magueye yàlla wane ca coobareem mu jëlaat beneen doomam jox ko ko ba am fi ak njaboot ba tey ki doon xalifa si Adama Gueye Cheikh Ibrahima Fall moo jur yaayam ni ko noonu boo demee ca kër Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu anhu danga fa fekk ñu bari ñoo xamante ni seeni waajur yu jigéen ay sët lañ ci Cheikh Adama Gueye wala ñu nekk sët ci Euh, Cheikh Mababou Guèye mi nga xam ne moom mooy doomu baayu Cheikh Adama Guèye ci ñoo xamante ni ñu ci bari dañuy mag waaj yi wax am nañu ko xaw a mat waajur sax kon relation bu demee nii ci diggante ñaari kër te la ko fondé woon mooy al irada kon li war mooy ñu sàmm ko moo xam ci taalibe yi la moo xam ci sët yi la te bañ cee dugal ab saay-saay wala ab jaahil ba mu ci dugal xajam-xajam waa ji nag doon wax moom ñaare ak caay-caay rax na ci ay mbiram ndax euh, Cheikh Ibrahima Fall soxlawut ku koy defal promotion di ko jaarale ci daaneel ku mu amal kóllëre gu yàgg ku sëriñ Tuubaa defar ndax Cheikh Ibrahima Fall li ko yàlla defar mm, nit mënu cee wàññi chibru Cheikh Adama Gueye li ko yàlla defar nit mënu cee wàññi chibru kon mag ñooñu àndoon ak Serigne Touba dañ leen a war a waggar waruñu cee jéem a suufeel kenn ngir yëkkati kenn loolu ku koy def rek nañ la jàppe ab saay-saay ak yàqkat waaye nag néew xam-xam wala ñàkk xam sax ndax waa booy xool ay waxam yépp ñu muy jànge ay ay alquran yi rek da xam ne jàngul ndax ay bu mu jàng rek daf ko yàq da xam ne jàngul ab waxkat la ab waxkat nag ak boroom xam-xam mun mënta bokk li ñu war rek mooy jamono ji nga xam ne nit ñi soxla nañ xam histoire yoonu murid ndax fex gi nu fex jëm ko ci sëriñ Touba te lépp muy moom koo dégg mu fi xoy xoy rek Serigne tubaa tax ndax ku Serigne Touba génn ci yow rek nga woyof tooy kon yu mel nii njuumte yu mel nii bu amee kenn ku ne daf ko war a leeral te foog naa bu laajoon sëriñam Cheikh Ndigal suñu mag ju baax jooju kon dana ko leeral ndax moom ku bëgg histoire la gëstukat la ba du tàbbi ci njuumte yi te dana ko gàgganti ba ëllëg du def xam gëm naa ne bu demee dana ko gàgganti ba ëllëg du def njuumte yu mel nii ñoo ngi leen di ziyaare di leen gërëm tey ñaan yàlla na yàlla sàmm kóllëre yooyu doxoon diggante ba mag ñi ba ab saay-saay du ci mën a yàq dara jërë ngeen jëf